Côte d'Ivoire nit ñaa ngi les armes en main Mali bu ñu la waxee xar na ñaar da koy gëm donc pays yi ñu wër yëpp ma ngay tàkk wala ma ngay saxaar benn pays moo stable muy Ghana parce que les anciens chefs d'État dañuy waxtaan seen biir dafa am démocratie dafa am paix donc ñun pour ñu am loolu dafay jar lu nekk ku nekk fàtte sa bopp ensuite nag bu ñu Idrissa dafa yóbbu ñaari yon ay nit à la présidence de la République yóbbu na Ablaye Wade par la marche bleue par une présence par des moyens Macky Sall bi muy deuxième tour avec Ablaye Wade ses meilleurs scores mu ngi Matam ak Thiès Thiès parce que Idrissa daf ci Il ba pare beaucoup ci gouvernement en lui disant que laajuma la benn condition bu jamono doxee 8 ans plus tard nous dund eu ñu dund Covid bu nga xam ni moom moo fi andiwaat sax immigration clandestine parce que immigration jeex na mais bu entreprise yi tëjee désœuvré, yi désœuvrés jàngiwuñu liggéeyuñu.

bu mel ni fi Tanor Dieng toogoon bu mel ni fu responsable parti yu mag yi toog loolu conseil économique et social xëy na moo fiy des parce que doo wekki sa allié andi allié parce que loolu da nga ñàkk doo am ndaa toj ndaa loolu nga mën a jël institution bu mel conseil économique et social teg ko fu am expérience su Idriss Seck nit ñi nag dañu xamul lan mooy conseil économique et social et environnemental man mii di wax ak yow def naa juróom at en tant que membre du bureau du conseil économique et social conseil économique et social dafa une institution qui est champion du Tassé. Je suis fay président conseil national de la jeunesse Samba Gaye bi je suis le président conseil national des ruraux du Sénégal Mamadou Sakho bu suis fay président des agriculteurs du Sénégal Gérard Sénac bi moom autoroute il les industries donc ay champion ci seeni domaine culturel économique industriel social environnemental lan moy sen rôle moy ay ay avis ay recommandation moy ay tektal ay gestu moy ay étude gestu nan lañ assemblée nationale mo leen koy sante wala gouvernement sante ko parce que nit yu une indépendance nonu am expérience nonu buñu je président na dégg pour jëfe ko té li leen loi bi may dañu am capacité de saisine moy ñu jox am capacité nit niko nga ku mel Idrissa parcours expérience formation professionnelle champion yu mel 32 experts yu nga conforme day niro théorisé sur le conseil suprême de la république té lolu koy théorisé xolé ko Nigeria Suisse xolé ko Amérique nga dañuy am ay personnalité yu am dayo yu wutatul nit yu wutatul yu bénéfice rek ñuy le pouvoir public yi loolu Idrissa théorisé en na 2016 te loolu prérogative yi mu ko joxe woon dafa conseil économique social et environnemental donc bu ñu fa nekkee di am di gëstu di joxe ay tegtal di di joxe ay recommandations mën na fa ne ànd ak di jox président de la République ay avis yu am approfondissement di ko jox ay recommandations fines di def ay études yu nga xam ne danañ ko ci lu leer ba mën a président de la république parce que suñu réew fi mu toll dafa laaj joyanti dafa laaj jubbanti dafa laaj redémarrage ndax Covid bi te loolu ñëpp a ci war a ñëw jàpp pêcheur bi daf ci war a jàpp paysan bi jàpp ci intellectuel bi jàpp ci politique bi jàpp ci xam nga loo gis source daf si am solo li nga wax yow fan mooy source bi est-ce que loo liir est-ce que loo dégg la juste lu nit ñi raconter modifier ko ba nga jot si poser ko question non D'abord, wax ni HCCT dañ koy conseil économique social et environnemental dañ koy pàcc pàccal def ay conseil économique social environnemental au niveau des territoires parce que nous def acte 1 de la décentralisation bu amoon ay conseil économique social et environnemental lu Amon, moom xalaatam il la toll tol. yu du a conseil économique et social recommandation recommandations faut war a ak études pour mu am solo conforme ak suñu architecture administrative dañ ko le a au niveau des territoires ko au niveau régional loolu moo nekk suñu programme 1 3 15 45 loolu la ñu ci bind mais dafay am ay interprétation abusive day am ay dëkkal foo dëkkul day am lu nga xam dañu koy déformer uniquement pour taqal la mais suñu programme boo ko à la page 10 loolu moo ci nekk dafay jël CSE des ko un conseil économique et social environnemental au niveau des territoires des 14 territoires conforme à la politique de décentralisation C'est ce que nous avons sax parce qu'en 1996 à l'acte 1 de la décentralisation defoon nañ un conseil économique et social régional Nous avons fait élite régionale le développement à l'échelle du territoire que nous avons fait. donc au lieu de conseil national c'est des conseils des territoires la sont mais déformés. déformer mënuñu la génneel benn vidéo wala benn écrit mais c'est une déformation naturelle Nous xam accéléré, lan moo nous ñuy accélérer di téye seen tànk mais nous am ci xam nga avis bu jubadi ak préjugé doomu aadama munu ci dara ku président de la république est arrivé deux fois aux élections depuis dix ans il y am des députés à l'Assemblée nationale. Depuis 30 ans d'opposition nga chef de l'opposition constitution lors de la modification référendaire de mars 2016 toute l'opposition a chef de l'opposition qu'est-ce que ça signifie le débat c'est au mois d'août rek nous débat, chef de l'opposition est-ce que je suis def est-ce que modification référendaire mais il y a mais le deux fois arriver deuxième à l'opposition et tout le temps avoir des députés et avoir gagné un département et des communes. Donc naturellement, institutionnellement, selon notre constitution, Idriss Seck aurait dû être le chef de l'opposition depuis longtemps. Mais toute la classe politique, comme un seul homme, s'est élevée pour lui dire non. Et nous avons dans Benno Bakoyakar, qui a porté le président Macky Sall au pouvoir, plus de 220 partis sur 310. Mais qu'est-ce qui empêche un chef de parti qui concourent à l'exercice public des responsabilités, de nous collaborer avec les chefs de l'État. Et tout le monde parle de deal. Dans votre rédaction, vous avez des conférences de rédaction qui regroupent une personne ou deux ou trois. Vous avez la détermination de la ligne éditoriale. Ben vous avez quelqu'un qui a les moins. Et à chaque étape de votre production euh, de l'information, c'est deux ou trois personnes qui se parlent. Est-ce qu'on parle de deal est-ce que la négociation entre des chefs de parti, entre des anciens PM, doit se faire dans la rue Mais non. Et s'il y a accord, des Anglais et les Américains, quand ils font accord, ils parlent de deal. Mais cette façon abusive d'interpréter les mots, cette façon abusive d'apprécier nos positions, cela doit cesser. Idrissé est un patriote, c'est quelqu'un qui, comme il l'a dit à l'époque, jusqu'à l'extinction du soleil, on ne peut rien lui reprocher, sauf un engagement sans commune mesure pour l'intérêt du pays.